allahu akbar allahu akbar kon démb ca guddi ba jullit ñay nelaw daal euh, nañu xam ni suñ ñaareelu jàkka ja alquran tudd Israël ñu nga demoon di ko bombardé di ko dóor ay roquette mu leer ñëpp gis ko leer bi amul kenn koo xam ne mën na ko weddi kon jullit ñi ñu ngi toog di seetaan seen ñaareelu jàkka ju di fa dóor ay roquette di leen fay fekk di leen fa jëlee muy lu ne àdduna bi yëpp gis nañ ko jullit ñi nag ñu ngi toog di seetaan waaye masjidul aqsal mubarak moom euh, bu jullit ñi toogee seetaan ba Israël mabbu ko boba mom borom bi tabaraku taala bu julli ñi dajeeg moom luñ koy wax dañu ko xam israël seen population lepp matul fukki million juróom ñent million lañ ñu tegal touti Palestine fukki million lañ ak ñett waye Palestine amuñu ay ngannaay amuñu doole israël nak amerique ñoo nek seen ginaaw di leen jox ay ngannaay yu am doole ngir ñuy fitnal ak not julliti Palestine ya loolu aduna bi yëpp xam nañ ko óoni xam na ko di sétane cour pénal gi nga xam ni euh, tribunal tiaxan bu nafiq la ñoom ñu ngi gis lool lepp diko sétane di dem di lijeenti yeneen mbir yo xam ni li ko gëna graw fuf ndax at mu jot euh, israël fal force daañu song suñuy mbokki jullit yi Palestine ci weeru koor gis ngeen ñu dem ba ci fan yu mujj yi ci fukki fan yu mujj yi ñu dem di song suñu mbokki jullit di leen dóor ay bal di xër masjidul aqsal mubarak xam nga ni li gàcce ko romb euh, jullit ñi mat nañ milliard ak nangam toog di seetaan seen jàkk ay yéefar dem di ko bombardé mu leer kenn nekku fa a gis ni ci télé mu leer nañ ñuy ñëpp toog di ko seetaan muy jëf ju ñaaw a ñaaw joo xam ne daara islam a ngi koy ñaawloo fermement jaa ngeen président Rajib Tayyip Erdogan moom xaarul dara toujours bu ñu laalee l'islam moom dongay jóg mooy xalifatul muslimin ci àdduna bi yëpp mooy amirul muminin ci loo xam kenn mënu koo contesté amul kenn ku mën a doon ab jullit fi mu wax ba président Erdogan nekkul amirul muminin wala mu nekk xalifatul muslimin jullit ñëpp seen xalifa seen amir mooy président Erdogan génn sànq ca capital ba Ankara dal di ñaawlu jëfi bandi wéyu ji nga xam Israël def na président Erdogan xam le Israël dal étape terroriste la noonu la ko waxee nee na Israël moom qualifié na leen ñu nekk état terroriste bëyu ndax lii nga xam ne def nañ ko Palestine nee na jëf ju ñaawa ñaawa ñaaw la te mi ngi koy ñaaru te ma ngay dànkaafu Israël dal na leen masjidul aqsa al mubarak bun fa demati di fa bombardé ñu fay bombardé jullit ñi kon daal président Erdogan nee na Israël état terroriste lañ te loolu adduna bi yëpp xam nañ ko état bandi la état vëyu la état terroriste la boo xam ne tour deret ak ray bakkan mooy seen métier lépp Amérique gu vëyu gi ñoo nekk seen ginnaaw di ko seetaan muy jëfi vëyu di daara islam di condamné fermement asalaamaaleykum waa Daaru Sunna seen mbokk Abdallah moo leen nuyuwaat baax di leen jógee du leen kontaane di am yaakaar da ngeen nekk ci jàmm di am tiis ak métit ak naqar ginnaaw bi nga xamee ne ñi yées ci suuf ñi gën a bon ci suuf ñi gën a suufe ci suuf si nekkeewuñu ne di noot di sonal ay jullit gis nañ ko at bu ne daal su weeru koor bi jotee balaa ñoo julli bala nit ñi di jéxal wër bu mag bi nga xam wëru weeru weeru yërmande la wala dinañu xo feesal xolu jilit ak tif ak metti wallahi tristesse bo xamné yow boko doon nat ah, do xam fu muy yëm wallahi buñ do buñ ko doon joy dé ñom ñu ñom ñoko dund ñu ñun ñu sori leen buñ ko doon metti lu ñom ñu ngi koy dund wallahi ñun ñu sori leen waaye nag mën nañ ñaan suñu borom mi nga xam ne wallaay moom moo moom moo jege ñëpp ah, te moom mooy nangu ñaan yi moo taxit mbokk yi war nañu setal suñu bopp si ci lépp loo xam ne bokkaal la nga xam ne bu ñu tàllalee suñuy loxo ñaan dañuy ñaan kenn rek muy buur bi nga xam ne mooy jalla jalaalu waa jakamal nga xam ne du rax dara ak bokkaale bu boobaa de ñaan yooyu la ñuy yaakaar yàlla suñu borom nangu ko waaye ñaan bi nga xam ne kay ñaan day bokkaale kooku moom na naka leer ne ñaan boobu noonu comme ni ko suñu borom di waxee rek la yaxbatanna amaluka la in ashrakta la yaxbatanna amaluka wala takunanna min alxaasirin moo taxit de muy suñu réew yeeg yeneen réew yi nga gis ne bokkaale fees na si ginnaaw bi nga xamee ne ñu ngi sonal doomu aadama yi pas-pas bu yàqu rek pas-pas bu tilim ba nga xam ne ñëpp tasaaroo nañ ginnaaw bu doon teg tënku nañ ci li nga xam ne moom mooy alquran ak sunna tënku si waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yem ci dong wala duñu tàqaloo koo tàqaloo yi nga xam ne tey kenn xamul lu ñuy def ba booloo jullit nga ne suñu borom wax na ko waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu waaye fan la ñu toll ci wax jooju nga gis ne jullit yi boo naan leen yàlla ñu naan la papa boo naan la yàlla ñu naan la maam ba pare di métti lu loo xam ne bu ñu booloo woon mun na am dañu mucc si waaye ndimbalu yàlla bu ñëwee walaay tooñkat yi nañ xam ne tooñ lañ mën waaye yàlla kattan bi mu am nga xam ne bu ko neexoon léegi mu yónni mu yónni lenn rek lenn si ay si si si wala sax kenn bu ko neexee si ay mbindeefam jël jalaaluhu wa azza kamal waaye na nit ñi xool rek di gis injustice bi nga xam ne ñu ngi koy teg ñii nga xam ne mooy doomu Palestine wala jullit fu mu mën a nekk di di di jooyloo jullit yi fuñ munti nekk nga xam ne tey division bi tax na ba nga xam ne dañu néew kattan néew kattan ba nga xam ne fokkat bu ñëw di fowee jullit yi masjidil aqsa la lañuy dugg di sànni lu leen neex ci jàkka yi nga xam ne ñoom ñoo gën ci jàkka yi waxuma loolu sax de waaye bakken bi nga xam ne bakkenu doomu aadama bi nga xam ne ñoom dañ koy jël dañ ko jëlee comme ay picc ah wala ay melentaan ah wala ay yamb yamb sax ñoom day dañ ciy jëriñoo ak ak ak ak ak ak ak lem bi waaye ñii ñoo bon walaay ñii ñoo bon ñii ñoo torox yan na yàlla alak yahud yu bon yi nga xam ne ñoom nekkeewuñu lu dul sonal jullit yi yàlla dooleel jullit yi fépp ñu mën a nekk ba ñu dellu dëgg-dëgg ah li tax suñu borom bind ñu ngir ñu jaamu ko ñun ñu xam ko di si jëfee walaay bu boobaa ñu dellu dégg li nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf koy wax jullit ak morom mi ñu mel ni benn yaram boo xam ne buy fuy métti si yaram bi métti fépp walaay ñun xam nañ ne yëg nañ ne de jullit yi métti na leen wala jullit yu bari metti na leen bu ñu nekkul ñi nga xam ne ñoom ah réer nañ ah waaye ñooñu sax duma leen wax ay jullit siiti ñoom ñooy dooleel ñoom ñooy dooleel yaxut yi ñoom ñaar ñoo ànd nga xam ne bu ah, ñu bu ñu bu ñu cuxee ci seen i caaxaan yaxut yi yaxut yi bombardé jullit yi nga xam ne ay jullit lañ la yan na yàlla libéré Palestine nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam de mu ñu koy nettali sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lu mu ñu wax noonu la bés de dina ñëw mbokk yi bés dina ñëw boo xam ne wala jamono joo xam ne ay bés yoo xam ne yahut yi yu bon yu tox torox yi dinañu daw di làqatu ci ginnaaw garab yoo xam ne garab yooyu ci boppam ñoom ñoo lay wax yow jaamu yàlla bi ñëwal sama ginnaaw am na benn noonu yàlla boo xam ne mu ngi ci làqatu ñu bon ñi noonu suñu borom yi yan leen yàlla toroxal yan yàlla dalal ñi nga xam ne ñàkk nañu lépp lu ñu am muy seeni wajur ak seeni njabot seeni dom ak seeni jarbat seeni lepp lo xamne am nañ ko ñu bëgg ko wallaay tis na metti na weeru koor bi nga xamne genn ci dafa a nekk mooy yi nga xamne mom la julliti am waye xol leen tis tis tis bi nga xamne ñom tek nañ ko ay jullit ah, ndax bon ak iñaan ak soxor ah, ñu kenn gënu leen bon ñu ñoo torox ñu ñoo ñu ñoo torox yan na leen yalla toroxal yan na leen yalla alak ñi ñoo bon yan na leen yalla alak yan yalla yàlla toroxal leen noot leen néewal seen doole ba nga xam ne dañ leen di gis si àdduna ñu torox di wëndeeloo seen torox torox tàngi ba yàlla suñu borom namm li muy namm si ñoom alag leen benn yoon yan na yàlla alag ñi nga xam ne nekkuñu lu dul di sonal julli di fekk fuñ mën a nekk yan na yàlla alag leen waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu si abdallah macha allah sa audio bi am na solo ñaan yi nga ñaan yàlla na ko yàlla nangu jazakumullah xayran yal na yàlla barkeel macha allah yàlla dimbali jullit yi e, ci dëgg macha allah kontaan nañ lool baarakallahu fikum wa jazakumullah xayran alaykum wa rahmatulah wa barakaat daaru sunna ñu ngi leen nuyu di leen jaare di leen ñaanal jàmm ah, di ñaan e, koor gi yàlla ko yàlla nangu di ñaanal yàlla suñu mbokk waa palestine yi yàlla yàlla taxawu leen yàlla yàlla jàppale leen e, li ñu sóobu yàlla yàlla may ndam ñu nuyu waa daaru sunna yëpp السلام عليكم ورحمة الله ودار السنة نيم ني نيو دي نزار والله دي ام دي ام تيس لول اك نياخري اك نكار لول لول لول تي ليغا خامن ني ييفري بون ني نين كو تك جوليتي جيلي سين اي جوم ديكو جمالي تي اي جوليت ني وور في toll fii ñuy di jaam fekk leen fan barab ya ñuy jaamoo yàlla ñuy ñuy ñuy dal seen kaw lay suma xol dafay jeex waaye nag ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala yal na yàlla dooleel leen jullit yal na yàlla dooleel leen waa Palestine yal na yàlla dooleel leen defal leen ndam ci seen kaw yi